الله لا إله إلا الله Allah. tàmbalee sant yàlla bu baax sëriñ bi mu ne gannaaw bi nu sant yàlla ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi mu ne ñu ngay nuyu sunu jaaj yi bi mu ne leen di wax ne leen ak leen ci kër te ngeen ànd ak dal dafa don besu feñal cant sëriñ bi mu ne sant gi sëriñ bi mu ne dañoo demon demoon mottali seeni farata dem nañ nak ca jàmm ci wat nañu ci jamm sëriñ bi mu ne ku la dem makkah ñaan boobu nga koy njëkk a ñaan boobu a ñaanal. demal ci jàmm dellu sil ci jàmm. nga fekk ñu ci jàmm itam. yàlla dogal na loolu. yàlla nag na loolu. kon tey. tey mi ne nag kon feeñal cant cant. lan moo tax ma ne bisu mu ne lu tax feeñal cant la. ab jaam. sëriñ bi mu jaam. minute bu nekk. minute bu nekk rek. këf këf bu nekk. xëfa xëppi bu nekk rek. war na nekk di sant yàlla. war na nekk di sant yàlla. waaye day am bis. waaye na dana am bés. da ngay taxaw. yow da ngay taxaw. ak sa jëmm. ak sa jëmm. nga feeñal ko. nga daal di feeñal ko. ba ñu la jege. ba ñu la jege. ñu dégg ne yaa ngi sant ngay sant yàlla. sëriñ bi mu ne loolu moo tax mu ne tey bésu santi yàlla la. alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi mu ne ñu doon lee sant yàlla bu baax. ñii ñëw toog ci suñu kanam. sëriñ bi mu ne ñi ñëw toog ci sunu kanam. mooy Pape Demba Sakho ak soxnaam. muy Pape Demba Sakho ak soxnaam. nit lañ ñoo xam ne. nit lañ ñoo xam ne. yàlla dafa leen may cër ci boggal bi. yàlla may na leen cër ci boggal bi le. ndax li ma gën a fonk. ndax li gën li sëriñ bi gën a fonk. ma gën koo def muy suma liggéey. sëriñ bi koo def muy liggéeyam. moom laa jëloon. sëriñ bi mu ne loolu la jëloon. ma dénk Pape ba Sakho. mu dal di koy dénk Pape ba saako mu boole ko ak taalibe yi. mu boole ko ak taalibe yi. taalibe yi mu doy leen. taalibe yi itam Pape Demba doy leen. te mu nekk it ku doy. te it mu nekk ku doy. ndax liggéey bi. sëriñ bi mu ne ndax liggéey bi. ku ci dem ku ci def dërëmam. ku ci def ak dërëmam. Pape Demba ñëw ba ci man. Pape Demba ñëw na ba ci sëriñ bi. mu ne ma diw. mu ne ko diw. yónnee na nangam. yónnee na nangam. sangam bésab sangam. jël naa ko jël li mu ne ma mu ngi nii. li mu ne ko mu ngi nii. lenn li mu ne ma ko bagage boobu ma jënd. te laa ko am na taxawaay ci dëkk bi sëriñ bi mu ne kon Pape Demba am na taxawaay ci dëkk bi. amee yoon bu toll nii. soo amee yoon bu toll nii. nga ne moo gën ci yoon yëpp. moo gën ci tukki yëpp tukki yëpp. Makka moo féetee kaw. dem Makka moo ca gën a kawe. ndax mooy mottali sa sa kenu lislaam. ndax mooy mottali sa juróomi kenu lislaam yi. ci Makka ci kaw soo ko manee. tey jii tey jii nag. yoon boobu. yoon woowule. la ñu yebbil. ñoom la ñu yebbil. nga xam ne. nga xam ne. ñeent fukki fan ci kanam. ñeent fukki fan ci kanam. lu ñaan yàlla. lépp ñaan yàlla. yàlla de koy nangu. tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku aj. yàlla nangu sa aj. yàlla nangu sa aj. yaa ngi mel ni ki bés bi nga juddoo. yaa nga mel ni bés ba nga juddoo. ci ñàkk ak bakkaar ci ñàkk bakkaar. te bakkaar moo la jël te bakkaar moo la jël ñu bari. mucc ca jafe na lool. waaye yërmande yàlla. waaye yërmande yàlla. yàlla indi aj. yàlla indi aj. mu ne soo ko defee ni mu waree. mucc nga mucc nga ci bépp bakkaar ci bépp bakkaar ba nga mel ni ki bés bi nga gënee àddina sëriñ bi mu ne kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin eh, sëriñ bi mu ne ñu ngi leen di sargal ñu ngi leen di wax dal leen ci jàmm su fekkoon sëriñ bi ne Ndakaaru la dëkkoon suñu wàccee aéroport këram lañ doon jubal loolu sëriñ bi mu ne xam na ko ci ñoom sëriñ bi mu ne kon loolu sant na ci yàlla bu baax sëriñ bi mu ne ñu dollee sant yàlla tombee na nag sëriñu daaso mi mu ngi ñëw ànd ak njabootam pour siyaare pour ñëw siyaare fette di kollere moo tax bi ngeen yegg moo tax bi ngeen accès mu ne ko ñëwal nga teewee ko yow it ndax nitu yàlla la nit ku baax la kon nag alaaji Pape Demba bismillah yow ak doomu sëriñ bi di jarbaatam muy sa soxna mi seen aj gi yàlla yàlla nangu ko sëriñ bi jàpp na sax yàlla na koo nangu ba pare ndax moom bi ngeen di dem la yëgoon loolu mu jàpp ne yàlla nangu na leen seen aj ndax seen i préparé ak li ngeen daj ak yi ngeen ba ngeen ca am yéene defar lépp mooy defar lépp yéene boobu nag yéene boobu nag moom laa yëg ci yéen moom la sëriñ bi yëg ci yéen ba ma xam ne ba mu xam ne alhamdulilahi rabbil alamin dama waxoon sànq sëriñ bi daa waxoon sànq ne ñun ñëpp nañu génn teertu leen teertu leen waaye mu tombé gaa yi dugg nañ waaye mu tombé gaa yi dugg nañ ci jumaa ji teewul ña nga xam ne ña nga xam ne daa leen ko waxoon daf leen ko waxoon mu ne leen na ngeen di tudd yàlla ba agsi ci kër sëriñ bi xale yi na def nañ loolu alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi mu ne bismillah bismillah sëriñ bi ne na xolam sëdd na bu baax sëriñ bi nag dal ba